fantahu beneen sabab bi waral ñuy gàmmoo mooy dañuy gàmmoo ngir sant yàlla ci islaam islaam xéewal bu màgg gi yàlla indil ñu ko yàlla moo na li in shakartum la azidannakum bu ngeen santee ma dolli leen islaam yàlla dafay nettali eh, ci alquran di wax ak eh, arab yi di wax ak mbindeef yëpp نان واشكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها yàlla mooy fàttali arab yi ne leen sant leen xeweli yàlla ndax njëkk islam di ñëw ay noon ngeen nekkoon da ngay doon dund dund njaay àll ku mën sa morom rek rey islam ñëw tàppe seen xol li ngeen nekk ay mbokk ngeen dem ba toll ci pindu euh, euh, teenu safara bu bugg caa daanu islaam ñëw génnee leen ci fa anqazakum minha islaam ñoom sawoo leen kon sante leen yàlla boo xoolee nag arab yi li daan dundee ak àddina bi li daan dundee avant islam di ñëw nga nga xam aaye bi ci côté social ci côté économique ci côté euh, politique lañ doon dund buñ continué rek tey waxatuñ ko beneen àddina la wax islam mo ñëw sans élève arabi yi dund bu doy war lañ doon dund ci cote pass pass dund bu doy war lañ dund ci côté social dund bu doy war lañ dund ci côté politique islam mo ñëw corriger lool yëpp delloo si leen corriger ala ci aduna bi mu wax ci benen aya هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين من يالا موي يونيتي أميني أميني موي إلاتر إن الفابت نيغا خامني جانغونو موي يونيتي تي نيوم أب يونونتو يونونتو بوبو نك دي جانغ آية يالي دلن دلن يار يزكيهم دلن جانغال بند دلن جانغال حكمة مو جونجي تي آية بي في ay mbir yu am solo arab yi njëkk yonentu bi ñëw alayhi salaatu salaam ay ummi yoona lañu woon ñu néew ci ñoom ñoo xamoon bint bi islaam ñëwee moo dind loola daf leen ñi xeet boo xam ne xeetu jàng la xeetu civilisation bi alayhi salaatu salaam mu ngi ko commencé ci xaswatu euh, badr éfér yañ jàppoon ku ci mënta jot sa bopp dangay ngay jàngal fukki doomi jullit euh, ni ñuy bindee muy sa jot boobu mu ngi commencé di di effacer ummi yëga di leen def muy umma ummatul qiraati wal kitaaba kon moo dindi ci ñoom loolu waaye moo dindi ci ñoom ummiyu sulookiya ummiyu sulookiya mooy comportement jaahiliya comportement boo xam ne awut yoon arab yi avant islam di ñëw amoon nañ juróomi xeeti sëy yoo xam ne benn rek moo ci baaxoon benn rek ci baaxoon mooy biñ xam ni yi ci benn baaxu ci arab yi njëkk islam di ñëw ku ci juróom doom ci jigéen da koy suul arab yi njëkk islam di ñëw ku ci sa baay gaañu say ay ay jabaram dañuy nekk jar-jar yaa leen moom fekk ba ñu jotee seen bopp fu leen neex nga dugal leen fekk ba ñu jotee can ga islam moo leen sawee ci yooyu yëpp كن مولن جيني جي أمي قراءة واي مولن جيني جي أمي سلوكية دفلن ني قيد بو قمنا دانيو أم سيفيليزاسيون آه، دوغو جزيرة العربية سانزيكو دوغو أوروب أندلس دف ويت ويت ويت ويت سيك سايكل سانزي فوف إنفسي جنا مك تي أوروب أندلس أنجاك أم تجولي نيوكو فدف كون تجي سانز ما بوب تي لا رينيسانس أوروبين نيوي adna bi sans etch كم بوقول اسلام مو سانس ادنب خلاتيني صح اسلام مو سانس كون نون بني فاتل جدو يونتو بي دنجو داف غير سانت يالا ادنب ييب دنجو روند فاتو صح غير اسلام لم انت كون موي وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها ي ني تي اي تي اي تي عربي دا فاي فلا بول تي ادنب ييب ndax islaam moo goreel xelu doomu aadama moo ko goreel ci jaamu leneen lu dul yàlla moo ko goreel ci jaamu leneen lu dul yàlla ndax xel mu suufe bàyyi tabax naka di ko jaamu boo xifee lekk ko moom xel suufe na islaam moo ci génne xel mu suufe bàyyi jël suuf sotti ci meew di ko jaamu moom xel suufe na islaam moo ci génne kon islaam moo goreel xelu doomu aadama ba muy jaamu yàlla baye lenen luddul yàlla islam mo dindi baras yi nekkoon ci diggante nit ñi seen gënante yi maa gën ki parce que ci xat bi laa bokk maa gën kële islam moko fi dindi ya ya nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqakum islam mo fi dindi loolu ne yéen dom yéen yéen nit ñi la wax sax maa ngi leen bindee ci kenn góor benn góor ak benn jigéen daf leen ngeen di ay peuple ak ay giir ngeen ngeen xamante ngir ngeen mottale wante loo man sa morom mënu ko nga dimbale ko ci waaye nag buy gënante moom ragal yàlla rek la islam moo fi indi loolu kon moo dindi lan nit ñu daan gënante lu ragal yàlla islam moo yëkkati bakk ni doomu aadama valoriser ko jox ko yëkkati ko ba sax mu def na ku rey bakkan wa min ajli dalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasadin fi l ardi fa ka annama qatala annaasa jamia wa man ahyaaha fa ka annama ahya annaasa jamia gisuñ benn régime ba àddina sosoo ba léegi bu jox valeur bakkan doomu aadama nu ko islam jox ba boo reyee benn bakkan sax dafa mel ni ñëpp nga rey boo dundalee benn bakkan mel ni ñëpp nga dundal kon islam mo gorel bakkan doom adama wul الاسلام islam mo yegi ta xam xam mo yegi ta xam xam وفضلناهم على علم على العالمين انما يخشى الله من عباد العلماء يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات مو يجي تقم قم با نينن ني روي كو بقم قم مو اغال ادنا با فم نيك دوم ادم مو غي ديم تي وير دي ديم تي مريخ islam moo wone yoon woowu kon yonent bi nga xam ne moo fi indi diina jooj wala ci loxoom la ko yàlla jaarale juddoom war nañ koo màggal ngir sant yàlla ci xewul boobu ñetteeli sabab bi mooy dañuy gàmmoo ngir dimbana ko ci siire yonent bi pour leeral suñ dund pour leeral suñ dund ndaxte siire yonent bi am na ay jàngat yi ci nekk ay leçon yi ci nekk yo xamne bépp société bu ci delu rek ta nek ci ay jafe-jafe rek man nga génn surtout ñun jullit ñi ñun jullit ñi nga xamne dem nañ ba ag fi yonent bi doon wax nan takadul umum an tatadaa alaykum kama tatadaa al aklatu ala al qasa qaalu amin qillatin nahnu ya rasulullah qaala la antum kusur lakinnakum gusaa ko gusaa isay yonent bi alayhi salaatu salaam ne basa nga ñëw te àggat soreetul xeet yi dañ leen di giiroo dañ leen di giiroo comme ni ñi xiif di lekk ni ñu giiroo lekk ñu ne ko ndax yonent ndax boobu dañu tuuti mun a déedéet du ngeen tuutee da da ngeen di bëri waaye da ngeen di am benn valeur da ngeen di mel ni puuritu géej rusaa on ko ko ay sëñ addis bu gudd la dem nañ ba tolli fi mu nekk nag daanaka àgg nañu foofu umma islamiya fu mu nekk dañ leen di saqatoo di leen xaccoo kenn ku nekk di jël buñ newee ba àgg foofu nag war nañoo dellu ci sura yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jël ci leçon yoo xam ne daf ñuy leeral suñ dund ñu delluwaat fañ nekkoon kon boobu muy troisième sabab bi li nga xam ne jar na ñu def gàmm kon ñetti sabab lañ ci tudd roy yonent bi sant yàlla ak leeral su dund ci siiraam pour delluwaat fañ nekkoon ñetti sabab yii rek doy na pour ñuy gàmmu léegi bu ñëwee ci euh, pàccu ñaareel mooy oote jëmale ci yàlla oote nag jëmale ci yàlla mission la mission la waaye du fonction mission la mooy ne euh, giir ak dund la xam nga fonction moom nit dafay retraite mais mission moom borom dafay continuer moom giir ak dund mission la parce ki koy def soxlu ci intérêt àddina waaye ngir maanal yàlla ci ut mu yonent yi ak ñëpp ñu doon doon fonction nag ñaareel borom daf ci ut euh, njëriñu àddina waaye mission moom borom yor ci ut kon loolu mooy oto jëme ci yàlla ta dafay bokk ci nasiha addiinu nasiha qaalu liman ya rasulullah qaal lillahi wa li rasul wa li aamati almuslimin laayante biir ci yàlla day dugg ci euh, oote jëmale ci yàlla mën nañoo oote jëmale ci yàlla ngir tasaare diine ci yaatal yërmandeel yàlla ji wa ma illa rahmatan lil aalamina kon ñëpp ci bokk ootee jëmale ci yàlla boobu mooy jéego bi ci jiitu yaatal diine ji dugal nit ñi ci diine yàlla ji jël nit ci kéefar dugal ko ci islam oote jëmale ci diine yàlla te mën naa nekk defar société musulmane ay jullit lañ waaye seen jikko yàq na ñu war koo defar kooku tamit ci oote la nekk ndax buñ ko defut danañ dem ba dañuy am quantité mais duñu am qualité dañoo am ay principe am ay comportement am ay mabaadi yoo xam ne mi euh, euh, société musulmane dañ ko dañ cee war a gaat buñ demee ba bëgg cee génn nag ootekat bi dafay ñëw fàttaliwaat nit ñi moom la yonent bi alayhi salaatu salaam di wax ne man raa minkum munkaran fal yughayyiru bi yadihi wala yastaf bi boobu bi mu koy waxutoon pour jël œuvre dugal ko ci mais ci biir société musulmane bi la doon wax ku gis ci yéen lu awut yoon lu jaaduwut na ko soppi ak loxoom bu ko mënee bu ko mënul mu soppi ko ak làmmiñam bu ko mënut mu soppi ko xolam moom mu ñaawle ko ci xolam comportement feeñaloo oote jëm na ci yàlla mën naa nekk pour defar nit ki àggale ko ba ci yàlla ba mu fi sori kon ñetti niveau yooyu la oote jëmale ci yàlla ñëw Euh, ma résumé ko noonu ma résumé ko noonu ñëw ci troisième partie bi parce que mooy baytul xasid troisième partie bi mooy est-ce que gàmmu mën nañ koo utiliser comme muy moyen oote jëmale ci yàlla foofu euh, li ñuy wax moyen mooy wasiila wasila eh, yàlla dafa am sunna ala ardi sunna soo xam ne mooy lépp lu ñu def ci àdduna bi rek dafay am wasila boo bëggoon a jógee fi dem fu sori am nga wasila mooy sa waruwaay mën naa nekk oto mën naa nekk gaal bateau mën naa nekk avion loolu wasila la ndox mi ngi sax boo ko doon naan da nga am wasila ci kaas boo ko sotti pour mën koo naan lii ma yore nii wasila la pour ñu bari deug limay wax kon sunnatul hayat moy istimal al wasila kon wasila lu am la nim amé ci dund bi non la amé dox jëm ci yàlla am ngir mané leer dafa am wasila yàlla moko wax ya ayyuha alladina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi wasila e yéen ñu gëm yàlla ragaleen yàlla te ngeen ut wasila ci lool borom xam-xam yi ne wasila man na nek top sunu yunus ta ali sallallahu alaihi wasallam wasila man na nek tudd yàlla ci mbooloo topp yonent bi alayhi salaam yàlla mo ne qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah ko yàlla mo ne waxal ne bu ngeen bugge ngeen manal yàlla bu ngeen bugge yàlla top la mo yonent bi yàlla dan leen bug ta dan leen ba kon top yonent bi wasila la ngir am ngir manal yàlla wasila man na nek aussi tudd yalla ci mbolo ñu ne wasbir nafsaka maa alladina yadcuuna rabbahum bilgadaati wa ashi yuriduna wajhu andal ak ñi nga xamne dañuy tudd yàlla subaak ngon ngir bëggul lu jëm yalla ci loolu wasila la ngir am ngir manal yalla wasila ngir ag ci yalla wasila man na nek top waliyu yalla kamil pour mu àggale ci yalla yàlla ne wattabi sabila man ma ilayya summa ilayya marjiukum kon wasila lu am la ci àddina bi mais lu am la ci diina ji mais lu am la ci dox jëm ci yàlla foofu nag ñu ñëw naka la gàmmoo di nekkee wasila pour oto jëmale ci yàlla comme que topp yonent bi wasila pour jëm ci yàlla buntu boobu la ñuy dugg pour na gàmmoo mën naa nekk wasila pour oto jëmale ci yàlla ndax topp yonentu bi bala nga koy def da nga koy xam bala ngay xam yonentu da ngay xam siiraam xam doxalinam xam métodam man koo topp loolu nag gàmmoo moo ñu koy jàngal ndax gàmmoo nekkul lu dul nettali siira yonentu bi nekkul lu nekk di siira yonentu bi wax ay jaar-jaaram wax jikkoom yi rafet kon foofu la ñuy jaaree nag gàmmoo kon wasiila la pour oote jëmee ci yàlla ci ñetti niveau nag ci ñetti niveau niveau bu njëkk bi mooy gàmmoo mën naa nekk oote jëmale ci yàlla ngir tasaare diine yàlla ci jëlee nit ci kéefar yóbbu ko ci gëm gàmmoo mën naa nekk wasila ngir loolu foofu موي استعمال الحكمة استعمال الحكمة pour أتجمل الجهاد وتو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن حكمة بابو ما يورال ngay tudd taru islam ak lu bax li ci nek ak imanité gi islam am imaanati gi mu am mandu yërmande jokk mbokk partagé ak yeneen ak yeneen nga xam ne bépp doomu aadama bu ko gisee rek daf koy daf koy neex ngay nettali siré yonent di ko jaaree foofu di feeñal euh, taaru islaam euh, ci ci ci siré yonent keneen di ko dégg koo xam ne nekk jullit mën naa dem ba convaincre ko mu ñëw dugg ci biir islaam moo tax mag ñi xekk ma boobu dañ koo jëloon xekk ma boobu dañ koo jëloon ndax ndax biñ ñëwee xekk ma boobu dañ koo jëloon boole ci xekk ma di gàmmoo ci langue nationale ci langue nationale nga xam ne euh, message bi dafay àgg du am baaraas te jamono jooja dañ fee nekkoon nag tubaab bi ñu colonisé woon nekk fekk église bi ñuy jëfandikoo seen moyen pour xacc nit ñi yóbbu leen ci yeneen diine ak ci yeneen mag ñi ñoom tamit di xeex pour xacc nit ñi yóbbu leen ci islam mu doon ab xeex nag bu metti bu bu métti mag ñi doon jëfandikoo ay moyens yu bëri ba ca a am solo ba gënoon am solo mooy gàmmu mooy gàmmu ku fekkewut yàgg ngaa dégg ci kas kasitu Mawlana Cheikh Islam ñi gaaw pare suñ bàyyi alaaj ja eh, ne ñu bugg a tuub nañ jege si mu leen tuubal yàgg nañoo dégg loolu ñu ko fekkut sax dégg nañ ko ci kaset kon moyen loon bu am solo te mu doon xeex bu métti nag ñu taxaw ci benn tomb foofu dañuy nettali ne jarida bu ñuy wax la fièvre dafa mësa jël carte Sénégal boobu ñu ngi ci xeex boobu carte Sénégal dese na ko jël Mariama dese na ko mu uuf ko ñu ne ko Mariama ñu ngi lay jëbal Sénégal nga barkel ko dégg naa bi lool accès ci Baye Baye bind abiyaat yi Baye bind abiyaat yi السنغال يأوي تحت ظل محمد ويعبد ربا جل شأنا موحدا ومن ظن شيئا غير هذا فظنه باطل سقيم عليل لن يؤيد رويدكم أهل الكنيسة لن تروا مدى الدار أن قد تركنا محمدا بين سنغال بوي اوفو تي كرك يونت يال محمد لا اوف بوي جامو بن بروم بن ويتال موم لاي جامو تكو ياكار لين لودول لول نك سياكار بوبو باطل لا دولو وير دولو دغر تا امول ارغيما ومن ظن شيئا غير هذا فظنه باطل سقيم عليل لن يؤيد من نك ين وا انجليز بدفنا نانك دالل دالل با ادنا دو توكي دوغن غيس مين وا سنغال ني باي محمد عليه الصلاه والسلام لول غارانتو sant yàlla alhamdulilah loolu garante la loolu garante bés bu gàmmoo te sewoon nag euh, ngeen xam ne wax ju lu am la kon xeex bi métti woon na ñu doon jëfandikoo ay jumtuwaay ba ci gënoon am solo mooy gàmm kon utilise nañ gàmmoo ngir xacc nit ñi dugal leen ci islam muy guerre bo xamne mag ñi dañ ñom ñoom ñoo ci gañ ndax té ñu démé ba am am indépendance bi xolé xoolee jullit ñi Sénégal sen nisba ag na ci 95% 95% quinze ku yaatal nak ci ab société ba am fu lu toll ne 95% am nga majorité kon ñoom ñoo gañe woon ci boobu ci ci guerre boobu mooy yoon ñu jëf ñoon jëfandikoo ci lañ demee ba am quatre vingt pour cent ci ci jamono ju jafeloon kon ñoom guerre boobu ñoom gañe nañ waaw parce que quatre-vingt-quinze pour cent majorité la te xam naa ne passé na ko sax kooku mooy premier niveau bi bi mag ñu doon utiliser gàmmo pour daawa ilallahi subhanahu wa taala deuxième niveau bi bi nga xam ne man ngi utiliser nañ ko pour gàmmoo euh, pour daawa mooy biñ demee ba nga xam ne am nañ majorité ñu ëpp ci population bi nekk nañ ay jullit mu des nag ak kii boobu ñu garder ko ñu garder ko mooy ne euh, monde musulman wala société musulman dafa am ay comportement yu ñu yore dafa am lu ñu war a mel dafa am jikko yu ñu war a yore jikko yooyu nag bës bu dañee ci ñoom tur yi moo fi nekk waaye ruuxu ga dem na dégg naa amoon nañ fi benn président bu doon wax Vatican ne leen Sénégal yi mënuma laa def ñu ay chrétien mënuma laa génne ci islam mais mën naa laa def ñuy ay faux musulman faux musulman boobu mooy deuxième xeex fexe ba jullit ñi nekk jullit vrai jullit seeni principe seeni jikko seen melokaan nekk julli dëgg ci qualité boobu beneen xeex la boobu beneen xeex la utiliser nañ gàmmoo ci xeex boobu muy responsabilité ak bi ñu am ñu garder ko fexe ba jullit ñi mel ni ñu war a mel duñ nekk ay jullit ñi ci tur xeex boobu moo taxoon tubaab bi ñu colonisé woon indi régime éducatif bu doy waar di di jëflante ak daare ji jëflante bu doy waar foofu ñu taxaw tuuti ci histoire buñ demee ba 1851 délégué pape bi xam nga colonial bi bu daan ñëw day ànd ak délégué boo xam ne pape bi moo koy yónni wala église moo ko yónni muy oote moom tamit di jëmale ci euh, catholique di def ay rapport dafa mës a bind rapport jëmee ko ci wasirul wasirul bahri wal xal ministre bi nga xam ne moo yore affaire réew yi dëkk yi nga xam ne dañ la coloniser di ko wax ne ko daara yi daara yi ak école quraan ñu ngi màgg màggan bu gaaw ci Ndar màggan bu gaaw ñu ngi tasaaroo tasaaroon bu gaw ak gravité bi gravité ak gàllankoor bi mu leen mëna a gàllankoor ñom ci seen mission koku mom tam bind gouverneur ndar moy proté ne ko xolal mbir mom jël ci mesure waji mom tamit jàpp na rek ne li ak firanga rek dafa ci dara biñ démé ba ci ba ci ba ci ba ci ba fader bi bu ñew 1854 bi rapport boobu xoolaat ko defaat ci étude décision décision yooyu bokk na ci bokk na ci képp wala daara il faut nga autorisation il faut nga autorisation autorisation amin bu jafe pour nga ko il faut wala nga tok fa lu ëpp juróom-ñaari at élèves yi ngay jàngal ku ci am 12 ans il faut ngay def ay cours français ci chaque jour ci école français ak yeneen yeneen yeneen kii fédéral bi mu fi jógee ki ko uutu ki ko uutu 1870 Molière moom dafa gën a taral mbir parce que moom daf ne autorisation pour nga am ko pour jàngale pour ubbi il faut da ngay maîtriser français élèves yi yi ngay jàngal ndongo daara ku ci am ñaari at sa école il faut da ngaa war maîtriser français wala danañ la génnee ci école bi ci génnee ci daara ji te beneen école du la recevoir lu école France. école kon yooyu ay mesures la woon yoo xam ne dañ ko doon jël dafañ ko woon pour génnee nit ñi ci islam dugal leen ci waaye dañ ko doon def pour eh, yar leen ñuy jullit ma ñu yar leen yarin boo xam ne dañu nekk faux musulman dañuy am qualité mais duñu am quantité duñu war a melokaani jullit te loolu sori na xeex boobu moo taxoon xeex boobu moo moo moo xataloon moo ma mën a jàppale ñes bam bam bam bam jógee fi dem Gàmbi ñaari yoon foogu ñoo na dafay jaar de déedéet xamoon nañ ci lim nekkoon waaye dañoo bëggoon a imposer seen système seen système pour ñoom ñi defar nit ñi waaye moom du leen defar loolu nag la doon bañ xeex boobu moo taxoon université Pire tubaab yi ñoo ko mu mujj lakk lakkuñu ko woon pour dugal nit ñi ci chrétien waaye dañ ko doon lakk pour xeex culturel xeex système éducatif mag ñi nag jël ñaari moyen benn bi mooy daara ji daara ji efficace na def na lu bari mais dafa amoon ay baraas dafa amoon ay barrage barrage bi ci njëkk mooy tubaab bi mën na koo teg ay gàllankoor ay galgal moo tax ba léegi daara ji ngeen gis ko moo fi jiitu waaye fa waroon a àgg àggu fa moo gis ba léegi moo tax ba léegi ndongo daara yi taxaw ci mbedd yi di yalwaan histoire la dafa am lu ko waral moo tax ba léegi sëriñ daara bi amul place am ci société bi te jàngalekat la histoire la kon daara ji am na solo mais dafa am na ay gàllankoor amoon na gàllankoor yi baras nañ gis tëj parce que téere yi ci arab lañ ko bind te tubaab bi nangu yenn téere yi dugg fi mag ñi dañ daan bind kon loolu langue gara baras toog am na baras aussi euh, dem ci daara ji jàng am na ñu ko mën am na ñu ko mën am na ag e am na e ko mën mais gàmmoo mooy deuxième moyen bi nga xam ne amutoon benn baras tubaab bi mënu koo aaye sañu ko ndax amul lu mu ko lay amul baros langues parce que mag ñi ci wolof lañ ko doon def ci langue nationale lañ ko doon def ñëpp di ko dégg gone gi mag mi ki jàng ak ku jàng jigéen jeeg góor ñi ñëpp di ko dégg ñu jox xam-xam bu lar nan ci langue bi nàmp muy dem message bi di jàll directement kon gàmmo moo doon euh, moyen bi kënoon efficace ci xeex moo tax moo tax parce que gàmmoo boo jéggee jikko yi ñu jàng ci yonent bi yu rafet yi mandu ga yërmande ga imanité ga waaye gàmmoo daf ñuy jàngal yeneeni comportement yoo xam ne ci gàmmu rek lañ ko mën ko jàng da am mbokk moo xam ne gàmmo gàmmo ngeen di gisante bu doon bu doon am sax du ngeen gisante foofu mu ngi ñuy jàngal jokk mbokk ziyaare te yàlla tax jóge dëkk dëkk jóge dëkk dëkk ñëw ci dëkk ci ziyaare ko gàmmu mu ñu koy jàngal génnee sa xaalis sacrifié leel jaamu yàlla ko gàmmu mu ñu koy jàngal ay jikko yu bëri yoo xam ne gàmmu daf ñu koy jàngal pratiquement amu beneen moyen bu ñu ko mën a jàngal dafay raxas jikko yu bon yi def ci ñun yeneen jikko moo tax moo tax bi waa ji laajee oustaz Ibrahima Mahmoud Diop naka tubaab bi moyen bi mu def ci senegal ak at yu yàgg yi pour changer ko changer culture am ba léegi réussir ci amu ci réussite lan moo ko waral moo ko sabab yu bëri na waaye ba ci gën a am solo mooy gàmm parce que lépp lu tubaab def ci ñun jamono def ci ñun rek bu gàmmu ñëwee raxas ko def ci ñun yeneen jikko mu mel ni gàmmu dend ak li ngeen ci wax ci julli ndax euh, gisu leen ne bu kenn amoon mbalka ci këram bés bu nekk mu ngi sangu juróomi yoon ndax dana tilim ñu ne ko déedéet mu ne julli juróom noonu la mel gàmmu it noonu la mel heure bu gàmmu ñëwee day raxas su ñun jikko yu bon yi def ci ñun jikko yu baax al jumuati lil jumua wa ramadan li ramadan mukaffiratun li ma baynahunna iza jtunibu kabaa'ir loolu la gàmmu def kooku kon kooku mooy deuxième étape troisième étape bi ci mooy bu mujj bi ci ni ñu utiliser gàmmoo pour mu nekk daawa jëm ci yàlla mooy defar nit ki ba mu am jikko jullit dëgg-dëgg yëkkati jullit ba nekk dëgg-dëgg jullit فوفو نقاح بنكت فلان ولا لا ويقاح بالدجنت نكلا بنخو بكنا إن النفس لأمارة بسوء إلى ما رحم ربي وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النص فطهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم فوفو قامو لمي دفت نتكي mooy dafay saxal ci moom mos neexaayu neexaayu melokaan yi yonent bu baax ñu ngi may jundal ne heure bi jeex na daanaka wala jeex na sax kon ñu ñu ñu résumé li ci des ñu résumé ko dafay def jullit bi benn mu bugg yonent bi alayhi salaatu salaam bu ko bëggee dana ko topp bu ko toppee topp na yàlla bu toppee yàlla mucc na gàmmu di nekk di siré bi ci anam bu kawe day tax tax jullit bi bugg yonent bi alayhi salaatu salaam bu ko dana ko topp ndax koo bëgg rek ko topp boo ko toppee topp nga yàlla boo toppee yàlla topp yonent bi mucc bu ko dana ko roy ba di ko toppandoor day am ci topp waaye daf koy toppandoor toppandoor moo gën a moo toppandoor mooy da nga faa nit ki faa ko ba lu muy def lu weex la daan sol ngay sol lu weex bu daan nangam la bëggoon ci yàpp buy dox nii lay doxee ngay doxee noonu lool mooy toppandoor da nga koy topp ba di ko toppandoor yonent bi nag kuy dem ba koy toppandoor nag yow da ngaa am sens yàlla daf la euh, def nga am puissance nga nekk ku am sens ndax mën nga caa dem ba digg gént di ko gis alayhi salaatu wasalaam te moo ne man raani fil manaam faqad raani fi inna cheytaan la yatamassalu bi ku ma gis ci nelaw gis na ma ndax seytaana mënta sol suma jëmm kon bu boo dana yëkkati jullit bi aussi mu nekk exemple ci ay jikko yu rafet ci ay jikko yu rafet ci def lu baax te jikko nag moom mooy diine jikko mooy diine yonent bi alayhi salaatu salaam innamaa bu'istu li utammima makaarimal axlaaq axlaaqi innamaa bu'istu dañ maa yónni pour ma mottali jikko yu yu mat bi nee na akmalul mu'miniina imaanan ahsanuhum xuluqan jullit ñi ku ci gën a matale nga mooy ku ci gën a rafet jikko kon gàmmu déglu sire yonent bi mën naa yëkkati jullit ba rafet jikko ci anam bu kawee kawee kawe kawe ci anam bu kawe loolu yëpp moo résumé loolu yëpp ñu koy amee ci gàmmu ci néew bi njëkk bu ñu waxoon tasaare islaam bu ñaareel bi defaraat société bi bu ñetteel bi defar jukki jullit bi ba mu àgg ci niveau di dund xaal boo xam ne ci yonent bi lay nekk alayhi salaatu wasalaam yooyu yëpp gàmmu daf koo boole ci benn guddi ci benn jotaay xanaa kon man bu ma déggee dañuy dellu ci aaya ja wa kullu naqus alayka min anbaa'i rusuli maa nusabitu bi fu fuaadaka yàlla mooy wax ci alquran yonent bi ko dañ leen nettali su lay yonent yi la jiitu woon ngir dëgëral sa xol ngir saxal sa xol bàyyi ne loolu mooy tegtalu daganu gàmmoo wala war gi sax ndax yonent bi ak màggaayam ak fi mu toll bu fekkee nettali ko su lay yonent yi dafay dëgëral xol waxuma ñun ñun ñi kon gàmmoo mooy defar loolu yépp di defar société bi jël nit ki dugal ko ci islam defar société bi société musulman bi defar nit ki ba mu àgg ci néew boo xam ne day nekk modèle moo taxoon bàyyi mi nga xam ne ci jamonoom moo yoroon raayatu da daawa ilallahi subhanahu wa taala moo ko yoroon min gayri nisa gàmmoo di occasion pour réaliser ñett ñett ñett objectif yëpp moo taxoon mu noon haniyan li ibrahima laa hilaaloo hilaalun bada li naazirina jamaaluhu hilaalu rabiin fii jaa muhammadun fattama lana bushra wa amal na waaluhu ndax ci bés boobu ci laa daan toog di wax benn wax bi ci benn kaddu gi ci benn baat bi am ñetti ñetti ñetti catégorie kenn ku nekk di naan fu bokkut ak sa morom fu bokkut ak sa morom mu toog ci taaraay ba ca xam-xam ba ca pédagogie ba ca ca ca yaatu ga ci leer wax gi muy wax ci xaal bi muy wax nga xam ne dafay dem ba nga xam ne yow ki muy nattali moo toog kon ñépp kenn dootu nekk sa place ku ñëwoon nekk ko nekkoon julit balaa muy pare yow da nga dugg ci islam bala muy pare ku ñëw nekk julli waaye say jikko dafa demewoon neneen bala muy pare say jikko dana defaru ku ñëwoon am baras ci yonent bi bala muy pare danga nga bëgg yonent bi ba àgg ci foo xam ne boo fa jógee modèle ngay nekk ñett sayru yooyu yëpp mu koy defal nit ñi ci benn place kon hani an li ibrahima laa xilaaluhu xilaalun bada li nazirina إلى ربيع فيه جاء محمد فتم لنا بشرى وعم النوال والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته